ñu ngi lay gërëm nag di la sant bu baax ci émission bi nga xam ne mooy émission tës nga dugg ci. waaw en tout cas xibaar bi day gis nga dama ko annonce nii rek waaye nit ñi dañu yéemu ci yàlla daal ci machine boobu nga xamante ni nii daal day jël ndox ndox yooyu gannaaw kër yooyu segg ko ñu koy def au minéral ba noppi tamit ñu waw jayit ñu am leneen luñ cay liggéey. waaw ñu bëgg la laaj daal mbir moomu daal fan la ne fii ci Sénégal bu dee ci Ndakaaru tamit fan la ne euh, ban quartier la ak it euh, kan moo ko fi indi. waaw euh, machine boobu euh, ci ci deux mille quinze. Mhm. ñuy waxee ki ñuy woowee Bill Gates. Mhm. dafa toog mu ni ci àdduna bi lu toll ci ñaari milliards yi nit. Mhm. Euh, amuñu ndox bu doy wala ndox bu wér bi nga xam ni dañ koy naan. di ko jëfandikoo ba tax na mu gis benn ingénieur américain bu ñuy woowee Janik. Janik boobu mu ni ko danga may defaral benn machine bi nga xam ni dina jël ay gannaaw këri nit. kon ndox bu ñuy far ci mbedd mu gannaaw kër yi nit bu ñuy génnee ci foos yi ngir ni mën ko soppi mën ko def ndox bi nga xam ni nit dana ko naan te dara du ko ci fekk janik janiki boobu bi mu defaree machine bi ñu tuddee que eh, omni processeur omni processeur boobu nag bi mu demee ba nga xam ne defar nañ ko ci Seattle ci diwaanu Amérique mm-hmm. machine bi ba mu taxawee noonu ba pare Mm-hmm. ñuy wut nag dëkk ba nga xam ne dinañ ko fa mën a yóbbu ñu mën di teste euh, ndox moomu la machine bi ñu daal di lëkkaloo bu na am ak nguurum Sénégal ñu ngi ci ñu ngi ci deux mille quinze li may wax ci deux mille quinze la. Mm-hmm. ñu lëkkaloo nguuru Sénégal ñu indi machine bi fii ci diwaanu Ndakaaru Ndiaye. Mm-hmm. bi ma dañu njëkk wax ci Afrique ñu ko yóbbu benn dëkk ci Afrique de l'Ouest sax. mu nekkee benn dëkk ci Afrique de l'Ouest nag on a daal di topp xibaar. bi e ma toppee xibaar bi mu daal di e, mujjee ni ndeke ci dëkk ba ma cosaanoo fa la fa la yegg si ci capital bi mu di Dakar. Hmm? waaw bi ma toppee mbir mi dem naa ba nga xam ni fondation Bill e, Belinda Gates mu di soxnay Bill Gates mu ni ma ñu ma machine bi mu ngi ci biir ñaay yi dans ñaay au Sénégal à Dakar. bu ma toppee loolu nag malheureusement xam nga sorianto bi. damay wax damay jëm a collaborer ak ay nit pour ni mën a demal ma ci yenn place nga xam ne nañu fa nañu nekk ci sama page facebook def naa ci photo eh, machine bi def naa ci vidéo bi nga xam kan bill gate ci boppam moom mooy wax li ni mel mais hmm. malheureusement pour ma am ki nga xam kan dana ma mën a doxal loolu ndax dafay métti toujours nga mën a collaborer ak ñenn ñi pour ñu mën defal vidéo wala jëlal la ay photo ci place bi hmm. man xamuma noonu Dakar waaye yàlla def na bi ma ñëwee Sénégal. Mhm. def naa le tout ba ma xam machine bi fu mu nekk. Uh-huh. dem naa fa dem naa fa ni démb. def naa ci vidéo def naa ko sax sama page Facebook machine bi nag. Mhm. biñ ko indee. Mhm. dama continuer di jokkoo ndax xam nga fële da ngay am droit à l' information c'est-à-dire que ni boo nekkee journaliste registré boo soxlaa information bi ba nga sa presse carte ba nga jël numéro tu as droit à l'information la war wax waaw loolu la l'information. États-Unis ngay ngay ngay droit la. Hmm. lay wax information bi par poste wala euh, par email donc ci hmm. ba kiiw machine bi ba ma ñëw euh, ma def vidéo ci machine bi machine bi nag lii moo ko bu soppee euh, bu ñu récupéré ndoxu gannaaw kër yi ci foos yi bu ko indee ci place ba nga xam ne fa nañ koy defaree mhm. dina am ñett yu muy indi dina indi li ko Bill Gates expliquer dafa ni ci cent mille personnes bu ñu jëlee seen gannaaw kër dina produire quatre vingt six litres ndox bu ñuy naan bu nit mën a naan quatre-vingt-six mille litres ndox bu nit mën a loolu ci gannaaw këru cent mille personnes la mu ni dana produire deux cent cinquante loolu nag amul woon fenn fu ñu waaye lëkkool nañ ci nguuru Sénégal ba ma découvrir ni kuñ ci lëkkalool compagnie wala euh, link euh, bànqaas buñ ci lëkkalool fii ci Sénégal mooy waa ONAS waaw ndox waaw léegi nag euh, mu am ay question yu bare ndagam ah, man dama njëkk a laajte foofu ndegam machine bi commencé na liggéey. Mhm. ñu ni ma waaw machine bi man nga foofu di def liggéey ba ko tax a jóg. donc machine bi liggéey ba ka tax a jóg mooy ñett yi ma la wax mën nañ ci génnee électricité mën nañ dañ fi génnee ndox te nag ñoom vidéo bi nga xam ne posté nañ ko ci ci fondation Bill Gates bi machine ba ñoo ngi ciy defar tamit ay briques ak engrais briques ak engrais. ci set bi am na délégation bu jógee Égypte sax ñëw di visiter si machine boobu boobule. Hmm. kon bi ñu demee ba nga xam ni hmm, loolu loolu am na wax naa ci mais malheureusement nguuru Sénégal mosuñu ci tontu. Hmm. kenn mu si wax ñu ngi ci ay détails yu nga xam ni <laughs> kenn xamul lan la mais le vrai débat. mooy bëggoon naa ko indi pour que nit ñi xalaat ci suñu nitu diine yi. di xalaat ndegam ndox boobu lu laabul boobu ndegam mën na bu laab ndegam tey dem na ba laab ba nu war mën a jàpp. Mhm. ndegam mën nañ ci il sang ba néew. Mhm. mën nañ ndegam mën nañ ci jëfandikoo suñu diine. ndaxte xam nga dëkk bu nekk ak i culture am ak i seeni i religion ak la nga xam ne contre man ak la nga xam ni moo di moo di science muy gën a développé. Mhm. waaye booy indi dara ci réew nga bëgg ko testé. ndax ñoom ñoo ni machine bi ma ngay def la ko indi kon bu nu kenn ñëwal di wax déedéet ndox mi dañ koy jël pour di ko arrosé tool bu dee pour arrosé tool la rek machine bi soxlawul Bill Gates ci di ci def yooyu ci ay milliards ngir ni defar ko wala di ko indi ba Sénégal def ndax machine yooyu di def ni di soppi ndox yooyu ni koy yóbbu ci tool yi mu tas na ca àdduna bi ñun de fële Washington bare na fa trop euh, bare na fa trop ndox yooyu nga waaye yooyu pour di yóbbu ci tool yi la kon bu doon yóbbu ci tool yeeg roose rek moo ko tax a jóg kenn ko indi Sénégal ndax am na ba noppi mm-hmm. kon machine bi wax nañu la tax ñu indi ko bon léegi nguuru Sénégal tontuwu ci te man dama gis ni mënuñu jël toute une république wala nga jël dëkk bi nga xam ne mel na Dakar nga transformé ñëpp en cobaye. Euh, kii Baba Baba Baba Aïdara. oui waaw est-ce machine bi mën nga ñu wax fan lañ ko installé ci mm-hmm. Ndakaaru. niñ ko niñ ko installé ci booru euh, Technopole. Pikine ci wetu wetu kii bi wetu euh, seen stade mbëri bu bees bi. arène nationale bi waaw boo xoolee arène national bi man côté bi ma jógee woon arène national mu ngi nekk sama ndeyjoor machine baa ngi nekk sa càmmoñ ñoo xaw a jàkkaarloo tuuti ci booru technicole bi. fii nga nga fii nga jógee booru Pikine nga wala autoroute nga génnee ne. waaw man autoroute à bi laa génnee. Mhm. bu ma ñëwee ci autoroute à bi moom dafay dafay mhm. nekk si sama ndeyjoor. Mhm. moom moom arène bi dafay nekk ci man day jël machine bi nekkoon ci technopole ba na leen la nekk ci côté ndox bi waaw boo ge voilà bu ngeen ko xoolee dafay nekk machine bi nga xam ne ci kaw dafay xaw a bleu ànd ak couleur bu silver donc mën na xaalis nii waa te boo gisee condition même bi ñu koy présenté Amérique ndax Amérique moom jotuñu fa def ndox mi ndax Amérique dafa am coow lu mag lu fa amoon ci mbirum ndox mooy euh, Flint River bi nekkoon bi ci Michigan. dañ ko doon liggéey ñu ngi dikki naan am mu indi fa feebar bu doy hmm? loolu tey jii ñu ngi wax waxu ay milliards ñi nga xam ni compagnie bi ma ngi koy fay ay euh, askan bi. ci benn hmm? dëkk bu ñuy woowee Michigan nekk ci booru Chicago. kon loolu moom xel xalaatu ko sa liggéey te te ak Ahmed. waaw. moo tollul ci situation bi nga xam ni war nañu dem di jëli ay gannaaw kër naan ñu ngi soppi yooyu ndox. Hmm. na naam Ndakaaru nag na ngeen torop ci mbirum ndox waaye yaakaar nañ ni yeggul foofu amerique ci cinquante états yi amerique am oo ci boolewul Washington nag kii ñoom Puerto Rico yooyu cinquante états yi neuf états rek neuf états rek ñoom nga mën a ubbi robinet nga naan ndox mi Washington capital ba sax dañ naan la ndox robinet bi waruloo ko naan pour sangu la ak i raxas mais mënuloo ko naan warul dugg ci biiru nit da ngay dem nga jëndi ndox nga naan ko sur cinquante états dëkk ba nga xam ne fa la Bill Gates cosaanoo mhm. cinquante états la mhm. te cinquante états yu neuf rek nga mën a ubbi robinet nga naan ndox mi yeneen yëpp mënuloo ubbi robinet nga naan ndox mi kon yaakaar naa ne bu doon am na fu ko war a mën a testé mën nañ testé ci ci ci ci ci ci ci ci réew yooyu mhm. waa léegi kii boo fekkee ni da nga war a utiliser ay nit ñu war a nekk ko cobaye ñun gis nañ ci ay développement médecine ak yooyu

la capital sénégalaise ci benn mbir bi nga xam ne ay test la te gis nga li ci gën a doy waar vidéo bi nga xam ne wane nañ ko ñi ngi wax ni euh, machine bi euh, tey jii mu ngi def ca la nga xam ne moo ko tax a jóg ba pare ni ngi wane benn xale bu jigéen mu ngi yore ay mbuusu ndox muy mooy sachet yi ndaw yi mhm. mu ngi yore mu ngi yore ay mbuusu ndox Eh, di ko di ko joxe eh, nit ñi di ko naan kon dañuy wane ni kon mbuusu ndox boobu ci ndox boobu la jógee wala déet donc yooyu ce sont des questions parce que ñoom publicité bi loolu nañu wane ci fondation Bill Gates boo demee ci seen site internet. kon baaba machine bi mën nañu wax ni mi ngi tàmbali produire ndox bi. mi ngi defar ndox. waaw waaw man ñoom loolu lañ ma wax dañ ni ma machine ba ma ngay def la ka tax a jóg. te boo moytul mu ngi reproduire en sachet. kon kay nit ñaa ngi naan ci ndoxu foos yooyu ci technopole. xamuñ ci dara léegi. léegi nag euh, euh, ndegam loolu nag def nañ ci ay études sérieuses médecins yi d'accord nañu ba ni waa nit mën naka naan yooyu ay affaire cobaye la loo jël nag nit ñi def leen kobaay à leur insu man bañu ma développement ndax science moom il faut muy muy développer nit ñi mën di gën a mën a dëkk ci dund ci àdduna bi waaye tamit booy transformer nit ñi en cobaye mhm. cobaye bi na doon ko mhm. volontaire wu mhm. cobaye bi na ko yëg waaye mënoo jël capitalu réew yëpp ndaw ndaw réew mi nga xam ne ñoom noo yore war a yor réew mi suba ñoo ngi tey jii ñu toog cinquante ans ñuy développé yenn feebar wala mhm. trente ans ñuy yenn feebar yi nga kenn xamu ko la mhm. preuve dal na leen à Michigan moom mooy euh, Flint River moom bañ nañ bi leen koy woowee Flint River water donc kon nekk na li nga xam ne tey jii suñu kilifa diine yi ñuy wax lu sax ndegam ndox boobu mën nañ koy sango neewu ndox boobu mën nañ koy jàpp hmm. mais surtout danger ministère de la santé ministère de la santé nous avons lu machine bind nañ ko indi ngam boole nañ ci wax parce que mhm. employé bi nga ne dafa may suivre ci internet enregistré audio bi ba mhm. enregistré rendez-vous ak waa SDE à huit heures trente du matin hmm? SDE men ah, ñu ngi mhm. am na en tout cas ñu ngi wax ci seen biir. Mhm. ba di wax dañuy dem SDE huit heures trente ba ingénieur bi naan ko waa huit heures trente moom teelul teelul di teelul ñu ngi ñu ngi werante ci heure bi pour que dana war a dem SDE. lan la ñuy defi SDE. E, mhm. je ne sais pas. je ne sais pas. xel SDE daal génn na ci génn na ci enregistrement bi kon.

tey na waar alors seen jotaay kay xanaa balaa ngaa ñibbi Amérique nañu ko def. <laughs> koy def kay seen jotaay ñu wax ci lu bëree bëri jërëjëf kon Baba Aidara. ok merci doomu Baye jërëjëf. waaw man simeer gis nga ko kon. pour ma def ci toq ko. simeer gis na ko. gis na machine. <laughs> génne na ko léegi. moo vidéo bi la. Mayel Chimère. waaw mën na damaa yàgg dañ kumb. non xam nga moom sax li mu wax <laughs> moom li mu wax leer na moom li wax leer na. Hmm. nee na moom bañul développement. xam nga li ma. ko bàyyi gi lay bañ te il ah, a <laughs> mi ngi ni Béya baa ngi ni. publicité baa ngi ni ñu ngi gas. xoola ñetti foos mi dugal ñetti dugal tuur ndox bi xoola mm-hmm. uh, mi ngi nii machine baa ngi ñuy defar machine baa ngi ni ñuy dugal gis nga mi ngi ni ñuy dugal ci foos bi ngi nii mi ngi nii Mais, c'est un Non, non, non, Non, vidéo ah bah Non, non, non non non. non non, ndox bi non, ndox bi pat ne pat bi non, pat bi. non, mais non, non, pat bi. non, mais non, non, non, jeex. non, société bu non, Delvic non, ñoo non, non, son directeur général non, non, Diop non, non, non, non, ay non, ñoo hmm. phase pilote bi non, non, hmm. hmm? ne phase pilote phase pilote bi. Mhm. nee nañ ONAS moom moo ko yor. kon ça veut dire que ni am na ndoxu foos ca biir. projet bi kay am na ndax moom nee na. moom du nii nii moom ma nga fa moom. moom ma nga ca foofa ca machine ba. léegi nag ñoom deuxième phase bi déwén commercial ñoom moom la ñuy gérer. ah njaay am na ca koon. waaw léegi nag ñu wax lu ñuy jaay kon. léegi nag kon nañ leen jël comme ça ñu gindi nit ñi ndax tey moom gisuma nit ñu baree bari mais seen bopp dana ëlbatiku du noonu ah. te am ay te am tamit ñaari version yëpp tam ñun loolu moom mooy mooy suñu liggéey du noonu ah mm-hmm, mm-hmm. nekkuñ fi voilà voilà nekkuñ fi ngir faral kii wala euh, wax lu neex ke wala lii ak lii ak mm-hmm, voilà du noonu ah voilà voilà euh, directeur général maa ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay fay euh, Seydi Ahmed waaw nga tudd Bekay Sidi Diop nekk directeur général bu Delvic comme ni nga ma ko expliqué sànq voilà léegi nag euh, journaliste ay dara nekk uh-huh. Amérique ñu bëree bëri xam naa ne xam nañ ko buñ ko xamul tam dégg nañu turam mu daal di fi expliqué nag benn projet boo xam ni fondation Bill Gates bi. Euh, amoon nañu yéene indi benn machine woo xam ne dañ ci liggéey ci wàllum ndox nag fii ci Afrique rawatina uh-huh. sow jant moom sax da doon dégg sow jant rek waaye ndekete machine ba réewam la jëm bi mu ñëwee tam mu continué uh-huh. ci ay enquête ba léegi nii. ndax États-Unis moom droit à l'information moom dafa bokk nag maanaam ca la réew ma santaane. Mhm. Euh, ba mu ñëwee Sénégal tam mu continuer enquête daal ba yem ci machine bi. machine bi nee na mu nekk fii ci technopole bi. Mhm. waaye nag euh, moom nee na ci kàddoom yow parce que nee nga dégluwoo ko mais say collaborateur ñoo la woo moo tax ma bëgg la wax rek li mu fi wax. dëgg mu wax ci ndox moomu mooy ndox moo xam ne dafay jóge ci mhm. ay ginnaawi kër. noonu ci ay foos ak yooyu. waaye nee na même bu dee sax euh, moom il ne refuse pas le développement bu dee technique mën na uh-huh. yenn yi tamit xelam daal uh-huh. day laajte ba uh-huh. xam mën nañ ci jàpp mën nañ ci sang néew mën nañ ci et cetera te tam euh, ndox mi dañ koy naan waaw wala déet yooyu yëpp daal xam naa ne tam comme que dugg nga te yaa ngi projet bi tam nga nga nga leeral daal interrogation yooyu mu fi dóor mm-hmm. dëgg la dëgg la waaw kay directeur jërë jërëjëf euh, Ahmed en fait maa ngi nuyu sa auditeur yëpp di nuyu sa mm-hmm. Eh, di wax ne li Baba Aïdara wax am na lu ci ne ak am na loo xam ne mën nañ ko gën a leeral ci suñu mhm. wàll mhm. Eh, li am mooy Afrique boo ko jëlee ba mu daj mhm. ville boo dem maanaam wu taax waaw diggante quatre-vingt pour cent maanaam téeméeri kër yoo jël juróom-ñett fukk yi ba ci cent pour cent maanaam yoo xam ne kër yëpp loolu la li ñuy wax assainissement autonome moo fa am mooy assainissement bi nga xamee ne ay force lay utiliser Mm-hmm. donc li ñuy wax un réseau mooy tuyau yi. lu néew a néew a néew a néew la ci Afrique. te lu tax mu néew njëgam dafa cher. pour investir c'est des milliards pour exploiter ko des milliards. lu tax may def boobu explication C'est est pour pour ñëw ci lu waral Bill Gates dugg ci bureau assainissement autonome damay jël rek kaawu Sénégal aujourd'hui réseau de bi mu ngi couvrir autour de dans tout le pays Dakar moi, ci suis autour de 30 Les petites villes ëpp ci ville Sénégal yi réseau d'égout Les petites villes ville Afrique yi même capitale yi un réseau d'égout parce que c'est trop cher même Sénégal amul un pour exploiter réseau bi du monde dugg ci aspect financier trop mais nañ jàpp et Afrique aujourd'hui une capacité un réseau fait qui gérer correctement Bill Gates du mu fait enquête sur ci Afrique ak Asie parce que moom dafay liggéey ci santé xaalis bu bëri lay def ci santé moo xam maladie yëpp hein muy tuberculose paludisme euh, vraiment toutes les maladies liées à l'assainissement da ciy yëngatu mu ne pour xeex euh, feebar du ma xaar ba ñëpp di feebar damay fexe avant ñuy feebar li ñuy wax prévention ñu def ko Et loolu pour def ko assainissement da ci am bi mu gisee ne li ëpp ci pays en développement yi ci assainissement autonome la ñu mën a accéder pour le moment hmm. mu ne il faut ñu jéem ko organiser fexe ba mu dox ci loolu la tëral fii ci Sénégal mu tànn Sénégal. Mhm. lu tax Sénégal parce que Sénégal moo jiitu ci Afrique noire à part Afrique du Sud. Sénégal moo ci gën situation assainissement. ci wàllu institutionnel ci wàllu juridique ci wàllu ouvrage Sénégal moo ci gën organisé. donc euh, pour réussir son projet mu tànn Sénégal def fi projet bu mag bu ñuy wax PSMBV programme de structuration du marché des bouts de vidange projet boobu am volet yu bëri depuis toilette yi camion de vidange station de traitement bout de vidange et valorisation bout de vidange Si ci valorisation vous avez ci projet ñu projet omniprocesseur mhm. projet omniprocesseur boobu li qu'on tax le projet bout de vidange yi nga xam ne dañ ciy jëli ci kër yi bu ñu ko traité wul correctement day polluer environnement dama lay wax ne Dakar parce mu toll y a le sac. tuuti bés bu yàlla mhm. deux mille mètres cubes tous les jours donc loolu la ñuy station de traitement de boue de vidange yi ONAS te Afrique station dañ koy a traité maanaam fexe ba tindi ndox mi maanaam buy day nekk pratiquement cinq pour cent de boue donc quatre vingt pour euh, ndox la ndox boue matière solide yi ndox dañ koy station de traitement d'eau usée station boobu moo koy traité ba mu dañ koy distribuer maraîchers yi wër ñaay yëpp loolu ma ngeen def seen enquête pour xool ne effectivement maraîchers yi la distribuer ndox mi jógee ci fosse yi ak ndox mi jógee ci réseau bi maintenant bu bi nga xam ne dindi nañ ko ci ndox moomu moom la ñuy woowal ba mu wow li ñuy wax séchage mhm. buñ ko woowalee ba mu wow boo ko xoolee day mel ni këriñ mhm. bu boobu la ñuy jël dugal ko ci omniprocesseur bi mooy machine boobu muy wax machine boobu liggéeyam mooy lan mooy tuuti ndox ba desoon ci buuba bu ñu ko wowalee dina am à peu près quarante pour cent d'eau quarante pour cent yooyu moom la ñuy évaporer maanaam dañ koy tàngal ba mu tàng ndox moom jóge ci buuf léegi ndox moom moom la ñuy récupérer defal ko un système de traitement mais vraiment très performant du ma dugg ci détail technique yi ba nga xam ne buy génn mhm. daanaka eau distillée lay doon bu ba nga xam ne nag wowal nañ ko ba mu wow moom la ñuy jël lakk ko transformer ko def ko énergie électrique muy courant def ko centre muy benn dóom boo xam ne dafa baax ci gàncax gi ak ci wàllu génie civil maanaam pour defar lu mel ni ay pavé yi ñuy def ci mbedd yi donc pour dellu si ci ndox mi ndox mi qualité am laboratoire bi nga xam ne moom la ñuy laboratoire de l' école supérieure polytechnique bu Dakar ak laboratoire bu ministère du commerce nga xam ne mooy saytu bépp al produit alimentaire bu dugg Sénégal ci wàllu analyse

am na réew yoo xam ne dinañ ko nangoonal mais Sénégal duñu ko nangoonal ñu ne ñun projet bi ñu taxawal muy omniprocesseur version commerciale. parce que li ma waxul mooy version bii fi nekk. Mhm. version pilote la. mais mais directeur moom la indi pour wane ne mën na nekk Afrique. d'accord bi ñu saytoo aspect technique yépp mhm. ñu ne kon dañuy defar nag version commerciale boo xam ne objectif bi mooy fexe ba filière bout de vidange. Mhm. secteur privé bi mën ci dugg. parce que omniprocesseur bi day ajouter valeur financière au bout parce que da ngay am électricité boo mën a jaay da ngay am euh, cendre yoo mën a jaay da ngay am ndox boo xam ne qualité am tollu na ci non pas ñu koy naan sax mais ñu ciy euh, euh, produire ay produits industriels. waaw mais kii alors directeur projet bi ndox mi c'est pour produire des produits mhm. industriels. d'accord euh, damay terminer rek ci benn point important. oui. quantité ndox bi nga xam ne omniprocesseur bi dina ko produire par jour xam nga ñaata. Ah. une dizaine de mètres cubes par jour. bu bu baree ba bari entre quatre et 10 mètres cubes. Mhm. Pour dire que c'est rien du tout pour la consommation de Dakar, c'est epsilon. Ouais, d'accord, mais directeur. Et amul benn euh, projet de production d'eau potable avec l'omniprocesseur. Benn. On va produire de l'eau distillée, on va produire du coolant. Ah, euh, du coolant. Alors Bekay. waaw Oui. le lima, la bëggoon laaj rek mooy nee nga ki nga xam ne mooy mhm. Bill Gates moom Euh, teste ko wa naan ko pour wane ne daal. maanaam ndox mi daal effectivement. Euh, mën nañ ko naan ça c'était pour de d'accord boobu dem na. mais fii tamit ci Sénégal. nee defaruñ ko pour di ko naan. wala mën nañ ko naan parce que Bill Gates naan na ko wane na ni kon ndox mu baax. Bill Gates bu ko naanee moom nangu na ko xelam nangu na ko. waaw d'accord ñun ay julit lañu. waaw d'accord ñun ay julit lañ mais ci publicité bi nga xam ne moom la ñu gis ci seen bi. Ah, dañ ci non c'est-à-dire y comment ça euh, qui a monté la non non non ci surtout Bill Gates la nekk en fait. publicité ñoom dañoo def bande annonce pour wax bu utiliser machine bobu liñ ci mëna jël jëlee lépp. maanaam li nga wax sànq dañ koy utiliser ci tool yi mais ci biir gis na ni ndox bu baax buñ defar def ko ci sachet comme yi ñu jaay ci mbéd bi benn xalé bu jigéen bu am à peu près 10 ans yoro sachet ndax bu jooy jaay ko pa bi pa bi naan ku wane ni ndox mi neex na. fausse publicité honnêtement amul mi mi ngi nii de ah, après mën na la jox lien ah, bi. Ah, lu fan lañ ko gis. mën na la jox lien bi léegi après. waaw après ngeen envoyé ma lien naa la envoyé lien bi mais loolu honnêtement amul. d'ailleurs pilote bi fi ne pilote la c'est un test. rien n'est utilisé sur ce pilote rien. ndox mi dañ koy utiliser pour arroser pelouse bi nekk fii. waaw c'est tout. waaw d'accord euh, léegi. donc ndox bu ñuy naan avec l'ISRA. wax nga ko sànq lii lii lépp wax ko sànq mais ndox bu ñuy naan lañ bëgg a xam dina ci génn wala du ci génn non du ci du ci génn ndox bu ñuy naan du ci jamais. et vous vous pourrez même voir notre business plan. Mhm. ngeen xool ne suñu business plan prévoir ñu benn yoon affaire wu ndox mu ñuy naan. léegi euh, on a prévu de l'eau industrielle. waaw mhm. mais ngeen euh, jëmee ko fa. moo tax ma euh, le journaliste là. mais il ah, aurait dû quand même s'approcher des gestionnaires du projet pour xam de quoi il s'agit. Ah, directeur. Ah, directeur avant ñëw rajo di wax. Wa non non non non non journaliste bi kay loolu def na moom dem na wuti information ñëw na euh, sur le terrain waaw non non non non ba léegi nii Baba Aïdara li mu wax dafa ne mhm. moo tax ma wax la li mu wax ah, nee na science maye na lenn uh-huh. li mais est-ce que xel maye na lenn li uh-huh. muy laaj kilifa diine ndax lii ak lii ak léegi yow kay loolu nga ko. loolu nga ko loolu nga ko tontu boobay benn. ñaar loolu mais attendez waaw ñaareel bi mooy. mais projet bi. projet bi. est ce que population bi. pub bi nga xam ne eh? waroon nañ koo def xam nga lii bis bu mm-hmm. xasee ba jóg d' moom moo waral lii. Mm-hmm. xam nga ñu bëri bëri xamuñu. xam nga lu mel nii su xasee ba am. yow yaa ko wax ne dëkk bu nekk ak culture am. Mm-hmm. am na loo xam ne bu xe merci bu xewee ci am dëkk. buñ ko déggee automatiquement xel yëpp li ñuy njëkk jàpp mooy lii moom mhm. mënul ne te warul mën a ne kon waroon nañoo préparer la population mhm. sénégalaise mais préparer leen à quoi à quoi li mooy li nga def nii li nga def nii ah, léegi nii d'accord cest à on n'a jamais eu un projet de production d'eau potable maanaam musuñu am projet boo xam dañuy produire de l'eau potable eau pour nit ñi di ko naan donc ndox mi Bill Gates naan fu mu jógee moom ndox bi Bill Gates naan moom fu mu jógee. non non non non non non non non non boobu États-Unis ñoom ba ñuy def test yi la première année. ba ñuy def test yi aux États-Unis bi ñu demee ba gis ne lépp normal na. ci la Bill Gates ñëw avec son image. peut-être problème communication la mais moom objectif am moo doon montré. que mën nañu am valeur à partir des bouts de vidange mën nañu produire xaalis. Mhm. te comme ndox mi moo gënoon a frappant pour moom. Mhm. mu ne xaaral ma naan ndox bi pour wan leen ne mën nañ ci produire ndox mu baax. mais ndox mhm. xool même sur le plan valeur financière moo gën a tuuti lu muy yëg. courant euh, fii Sénégal produire benn yoon ndox bu di naan. machine bi produire ko. dama di invité ngeen ñëw visiter projet bi. moo gën a yomb. incha allah dinañ ñëw. waaw euh, non non ñëw euh, woo leen uh-huh. am na uh-huh. fenn foo xam ne da nga fa waxee ne. da ngeen a jugé wul woon utile pour peut-être euh, bon communiquer ci affaire bi parce que parce que et cetera et cetera mais. xam nga non non j'ai pas dit et cetera et cetera j'ai dit hmm. parce que amuñu benn projet. de hmm. production ndox mu ñuy naan amuñu projet boobu. Hmm. d'accord d'accord. voilà mais projet bu mel nii aussi bu jógee bitim réew di ñëw. l'état moom c'est la transparence dëgg la wala dëgg. absolument waaw lan moo tax ay ay ay ay euh, euh, direction centrale. Euh, des marchés publics am lan motax li ak li ak li di am yooyu nonu yëpp ci Pompéterre sax xana buñu def dina am dina am appel d'offre direction des marchés ça c'est pour gérer les appels d'offres ak non dama la jox exemple la la wax dama ne la lu wax ay appel d'offre ak yooyu di am kaay leen ngeen ñew soumissionné ñu xol kan mo gën ki xol xool ko l'état c'est la transparence loolu lañu wax dañ ne projet bu melni bu ñew Sénégal dañ ko may ONAS amul bii du pour privé bi public la manam bi fi nek ni mais raison de plus du du privé fait comme que public c'est un don d'accord d'accord kon directeur yaakaar naa besoin d'appel d'offre quoi je veux dire. non mhm. non mhm. Mhm. xam naa comprendre ma waxuma ay affaire appel d'offre de ba léegi nii dama ne rek. da yow da nga jugé ne kon euh, bon jarul woon xëj na ñuy def yenn koom yi bëri bëri yooyu communication yeeg publicité yooyu noonu pour pour nit ñi xam ko dama ne est-ce que lii bi muy ñëw baaxul woon pour ñu xamal sénégalais ne leen projet kat mi ngi ñëw Sénégal lii mooy njariñ la ak lii ak lii ak lii ak lii parce que bu ko nit ñi xamul aussi. il est vrai que projet bi bi muy ñëw c'était un une expérimentation man nee naa la kii phase pilote la.

<coughs> waaw mais la ñuy jaay la bëgg a xam ñun. non non non la ñuy jaay lan la. léegi nag léegi nag ah <laughs> waaw loolooy laaj bi nag lu ci dugal ay ay ay ay ay SDE ak ñoom seen te comme que ndox la moo xamante ni duñ ko naan bon nañ jokkoo ak euh, directeur ONAS sama nee na dafa bëgg nee na dafa chômeur